bokki M-Media Group Nourou Darayni bokki taalibe bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante suñu borom subhanahu wa taala julli ci bu tedd ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dellu santa seexuna alxadim alayhi akbaru ridwanullahi baaxil xadim di ñaan suñu moom wa taala fayal nu ko waaye di ñaanal seex muhammadul muntaqa suñu moom ko fi lool te mu ànd ak wér ba li mu yéenee liggéeyal lislaam yéene ko liggéeyal ñooñ lislaam mu àggale ko fa kawe njortam ànd ko ñun dongo yi ci barke alquran karim kon insha allahu taala euh, noo ngi sant suñu borom bu baax bu mu may ñu dikkaat ci bis bi parce que yéene ñëwaat ci sunu émission euh, yóbbalu soxna yi muy zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati doon émission boo xam ne émission fàttalente la ngir li alquran karim wax wa dakir wa inna dikra tanfau muminin waaye doon eh, émission boo xam ne émission laayante biir la ngir xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama lu mu wax nasiha diine laayante biir la mu mel ne laayante googu moo indi émission bi di soxna yi ñu ci fàttalente ak di ci laajte biir ak sunu bokki soxna yi waaye ak sunu bokki góor yàlla yi ak mboolem koo xam ne sunu moom subhanahu wa taala namm na ci sag jëriñu zahira doo baatina ñu di ko amale fii ci ëttu M-Media Group Nourou Darayni kon sunu jataay bi nga xam ne moo paase noo ngi doon wax ci barab yi nga xam ne sunu moom dafa tollale góor ak jigéen ci wàllu farlu ci wàllu jaamu yàlla ak farlu digganteem ak topp yonent bi sallallahu alayhi wa ak farlu ci digganteem ak ak mbindeef yi waaye farlu ci mboolem lépp loo xam ne moo koy jariñ euh, mu teg ca tànkam waaye farlu ci mboolem lépp lu koy lor mu teg ca tànkam wala sax moo bañ ko ca teg euh, indi woon nañ ci aay bu nga xam ne suñu Boroom tabaaraka wa taala daf ko wax ci sooratul Ahzab muy innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati ba aaya ba jeex mu mel ni sax émission bi yaakaar ne génn noonu aayu aaya boobu euh, mu mel ni tollale gi nga xam ne moom la suñu borom tollale foofu góor ak jigéen nga xam ne li mu tagg góor lépp dafa ko tagg jigéen foofu ci góor gi nga xam ne dafa nekk digg-digg al muslim ak jigéen ji nga xam ne dafa nekk digg-digg al muslim ak góor gi nga xam ne dafa nekk digg-digg al mu'min ak eh, jigéen ji nga xam ne dafa nekk digg-digg al mu'min kon jigéen ñi wala ñenn ci jigéen ñi suñu xamee seen bopp lanu wara làngandoo ak góor ñi du ay xëcc loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko teg ci loxo góor te mu ëpplee ko jigéen waaye dañuy xool ci wàllu jaamu yàlla ci li nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf ko làngale ak góor ñu làngante foofee waxoon nañ ne garaat yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dana ko takkal góor te du ko takkal jigéen eh, am na waaye yu néew la bokk na ci ak yonent ak nubuwa góor rekk moo ko jagoo jigéen du ci fekk dañuy tuddee al xut bu itam al xut góor rekk moo ko jagoo jigéen du ko ci fekk waaye li ñuy wax al xawsu moo ko jago jigéen du ko ci fekk am na yeneen waaye yooyu ci la bokk euh, waaye yeneen yi ci yëpp bu ci góor farlu ba teg ca tànkam ba man caa agg ci maratib yu kawe kawe ba àgg ci euh, garat yu kawe àgg fu kawe ci digganteem ak boroomam rekk jigéen man na ca àgg ay bi moo koy firndeel al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaat ak yeneen yeneen aay yoo xam ne nekk na ci alquran kon jigéen ñi war nañoo fexe farlu ba say bu buur ñi nekkee al muslimiina ñoom ñu nekk ci seen wet seen wet al al muslimaat bu góor ñi nekkee al muuminiina ñu nekk ci seen wet doon ay muuminaati bu góor ñi nekkee ay xaanitiina ñu nekk ci seen wet ay xaanitaati bu góor ñi nekkee assaadixiina ñu nekk ci seen wet assaadixaati topp ko noonu ba ba fa sun boom subhaanahu wa di wax ne ñoom ñëpp ku ci mel noonu ëllëg lamala dig mooy euh, adala lahum maghfiratan wa ajran azima kon góor ñi nga xam ne danoo danoo euh, danoo danoo làngandoog jigéen ñi ci euh, ci ci tolluwaay yooyu jigéen ñooñu am nañ ay cër yu màgg a màgg ci fa seen borom subhanahu wa taala kon loolu lu ci jara bàyyi xel la waaye du caagin góor du caagin jigéen nag moom day nekk di bëgg a làngandoo góor rek ci wàllu àddina lépp loo xam ne lu lu lu lu uh, àddina rek la uh, nga xam ne danga ci am cërub àddina moo xam ne dañ ciy am alal wala nga ciy am ku la tagg bu nee góor rek jigéen di bëgg làngandoo ñoom am ko waaye nanu fexe yi teg seen tànk ci garaat yi góor ñi am ci diine tan man koo am ñoom te ñu fexe am ko waaye du caagin àddina rek kon loolu moo nekkoon sunu émission jataay bi nga xam ne moo passé kon insha allahu taala tey jii ñu fas yéene dugg ci téereb Sëriñ Tuubaa boobu tudd wasiyatu soxna Penda Diop mu dénkoon ko soxnaas bay taxam di soxnaas euh, di soxna Penda Diop kon insha allahu taala ci téere boobu lañu fas yéene indi sunu émission tey jii jëm soob na suñu borom bi nag dénkaan la bu am am solo boo xam ne Sëriñ Tuubaa ridwanullahi moo ko dénk soxna Penda Diop waaye def ko dénk soxna Penda juub waaye mën na ne amatan lil muslimina wal muslimaati euh, ci koo xam ne suñu boom tabaaraka wa taala namm na ci sag jariñu ndax ndénkaani yi nga xam ne moom la ci dénk soxna Penda Diop ci dikk ko mooy moo xam góor la wala jigéen képp koo xam ne teggi nga ci sa tànk ci moytandiku ko wala nga bañ koo laal mën nga mucc àddina ak àllaaxira waaye ndinkaan yi nga xam ne moom la dénk soxna Penda Jóob ci di ko di ko di ko ca awloo koo xam ne teg nga ca sa tànk moo xam góor nga wala jigéen mën nga am tawféexi suñu boroom muccuk àddina ak àllaaxira am ca texe gi gën a mat ci texe yi kon mën na ne dénkaan la boo xam ne mën na ne adresse mooy soxna Penda Jóob waaye nag mboolem jullit ñëpp xañ ci biir kon ginnaaw bi moo commencé tudd tur yàlla wax bismillahi arrahmani irrahim xaala taalibullahi wa rasulihi arraji minhuma minhuma rida walxabuudi dafa tudd tur yàlla euh, wax ne aji wax ji nag mooy ki nga xam ne mooy sakku yàlla akub yonentam waaye euh, ci ñoom ñaar mooy sakku ci yàlla akub yonentam ngërëm ak nungu mu ne yuusi muridatahu zawjatu ammihi penda juuf xafarallahu lana wa wa maha anna wa anha kulla zanbin wa mu ne muy dénk muritam boobee di soxna penda juuf di soxnaas baay taxam di soxnaas baayam bu ndaw eh, yal na yàlla jéggal nu soxna penda juuf waaye yal na faral do sunuy bakkaar ak sunuy tooñaange te faral ko soxna Penda Diop daadi koy ko wax ko alay alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaxfiru laki mu mel ni xañ ne daan jaar ci baati benn benn bu mu jeex waaye nag bu mu jeex la ni dëppaat insha benn bu ci nekk ñu taxaw ci ci eh, yi nga xam ne moom la tudd foofu ci di ko moytandikuloo ak yi mu tudd ci di ko ci awloo mu wax ko ne ko alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fa yaghfir laki yow soxna Penda Diop euh, maa ngi lay dénk ci nga muñ waaye nga ragal yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ kon suñu borom subhanahu wa taala dana la jéggal del wax ko ne ko duumi ala tawbati bil wala tamili li siwa rashaadi soxna Penda Diop maa ngi lay dénk ci nga sax ci ragal yàlla waaye ci farlu waaye bul jàng mukk mukk mukk jëm ci lu ak njub dellu ko wax ko ne ko duumi alal xumuuli wa tasatturi wal tuxfidi sawtaki dëhran tushkari maa ngi lay dénk ci nga sax ci diggeem mooy dina butu ak suturlu te ngay suufeel sa kàddu diirub jamono kon des na la sant la tanzuri ma dumti xayatan ila ghayril taxliluhu xaddin jala ne ko soxna Penda Diop bul xool mukk mukk li fekk yaa ngi dund jëme ci loo xam ne lu la am lu la amalul njariñ la lu la amalul lu la euh, wax ko ne ko wàccani bil ribata wa takabbura wa asbiti sukuta wa tasabbura maa ngi lay dénk nga moytandiku jëw li ñuy tuddee alxiibatu te mooy jëw wat takabura ak rëy rëylu wasbiti ta nga saxal assukuuta noppi wata sabura ak di ak di muñ ak di muñ wattani bil kaziba wa riyaa wal ujba wa sumaata wal baxdaa na nga moytandiku wax lu dëgg na nga moytandiku njistal na nga moytu naw na nga moytandiku naw si jëf na nga moyta na nga moytandiku ndiggital na nga moyta na bañ benn jullit ci lu dul xaqi sariya wala bañante wasbiti sidqa ma al ma al ixlaasi wa nusha tazfar bil ixtisaasi na sax ci di dëggu te ànd ak sellal nag te del lay biir bu ko defee danga tuufu mooy danga jariñu wala danga texe ci ak sellal wala tarumi taatallaahi bila taati sawjiki attaqiyi dil ula bul sàkku mukk mukk topp yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci lu dul topp sa borom kër bi nga xam ne ku ragal yàlla la wal taalami ann jihaada niswati fi taati aswaaji doona miryati na nga xam ne li tax ma wax la loolu jigéen jihaadam dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mu topp borom këram ci lu dul benn werante ndax waxay suma sawju radi an sawjati radi anha rabbuha bi ni'mati ndaxte kat saay bu borom kër gërëmee soxnaam sun borom subhanahu wa taala dali koy gërëm waaye amma isa lam yarda anha abada fa laysa yarda laahu xa sarmada na xam ne bu borom kër gërëmul kët bu xarabi yàlla xarab borom kër bu gërëmee yàlla gërëm waaye bu gërëmut yàlla du gërëm ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam du gërëm waltaalami bi anna kulla ma sadar li gayri wacci sil jilaali wahadar na nga xam ne lépp lépp loo xam ne yaa ngi koy wax wala yaa ngi koy jëf wala yaa ngi koy yéene wala yaa ngi koy xamle te jëmm yàlla taxut loolee ay neen faalami la yanju ahadun min azabillahi xata yatruka arbaata ashyaai yow soxna Penda Diop na nga xam ne amul kenn kenn koo xam ne danga mucc ci mbugalam suñu borom subhanahu wa taala lu dul ni danga bàyyi ñeenti jikko yi ma lay bëgg a tuddal mooy yan alkasiba wal kibra wal buxla wa zo sanni muy lan wax lu dëgg ak rëy ak nay ak ñaaw njortu na nga xam ne amul kenn koo xam ne danga nga mucc ci mbugal mu seen borom subhanahu wa taala ci lu dul da nga seet wicc sell ci ñeenti jikko yi mooy moytandiku di wax lu amul waaye moytandiku rëy moytandiku nay waaye moytandiku ñaaw njortu kon foofu lañ dénkaane bi eh, daanoo insha allahu taala al karim bu ñu dikkaatee eh, des na ci jaar benn par benn tomb yim ci teg baaramam di ko moytandikuloo buñ ci mën yaatal des na ko yaatal yim teg baaramam di ko moyta di ko di ko ci awloo buñ ci mën a yaatal des na ci yaatal sunu kemplaay kàttan insana kon foofu lañu taxawlu sunu jataay tey di ñaan sunu borom subhanahu wa taala defal lu tawfiq tey siir a lu baat na defal nu njéggal defal nu yërmande defal nu ngërmande defal nu ak mucc ko àddina ak àllaaxira suturaal nu àddina ak àllaaxira sunuy bàkkaar yu mag ak yu ndaw yu nëbbu ak yu feeñ yu nu xam ak yu nu xamut yu nu tay ak yu nu tayut ci ba seexuna alxadim ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci barke bi alquran karim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يعطى من الأجر ثم الطرف قران وعاعد البر مرات لينقذه حتى يتوب لمن للذنب قطار وعين أبصره الصديق ساسر وتعته سيطم بالسعو فرار sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey